asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ni ñooy suivre seen site euh, internet préféré Sénégal 7 premier site internet du Sénégal voire même en Afrique euh, tey nag euh, comme ni ñu ko xamee rek li olof di wax lu defu di wax lu ay di njàmbat tey nag li nga xam ni moo jëm ci ngéntewaat bi nga xam ni dëkk bi sell bii di njasaan dina ko amal at bu yàlla sàkk ci li nga xam ni moo jëm ci gàmm gi ginnaaw ay bés bañ ko amalee li nga xam ni moo ñeel juddik Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam tey nag fii ci Ndiassane ñu fas xam ni moom la ñuy wax euh, ngénte euh, tey nag moo waral Sénégal set déplacé wu ak équipe ngir fexe wan leen lépp lu fi bàyyikoo ci li jëm ci euh, li nga xam ne rek mooy xew-xew bi dara leen si ump ñu fas yéene ci ànd ak toute l'équipe technique yi nga xam ni ñoo déplacé wu waaye tamit ñi nekk ci côté di côté de Dakar ñoom ñëpp ñu mobilisé wu ngir rek wan na leen li nga xam ne moo nar a bàyyikoo ci li nga xam ne rek mooy xew-xew bi nar am fii ci dëkk bu sell bi di Ndiassane ñuy fàttali nag Ndiassane ci taarix nekk na dëkk boo xam ne ji waa ahlu kunti yu ñoom ñoo ko sanc te loolu mi ngi nekk loo xamante ni ji yàgg na yàgg goo xamante ni ji ba tey ñuy màggal 137e édition maanaam téeméer ak fanweeri at ak juróom ñaari yoo xamante ni ji bi ñu commencé amal lii di euh, ngénte euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci dëkk bu sell bi euh, tollu na ci loolu nag mi ngi datu mi ngi am ñu ngi ko doore ci atum 1884 mu nekk loo xamante ni ça ne pas d'aujourd'hui kon yàgg na te lu yàgg dëgg la ni ko Olof Njaay di waxee nekk na fa sa xel dina dem si Ndiassane rawatina sous région bi ñu ci mel ni waa Mauritanie dañuy ñëw waa Mali dañuy ñëw ba Bissau jàpp Gambie kenn du des ñoom ñëpp dinañ ñëw ut si li fii nga xam ni ñëw seet si dëkk bi nga xam ni mooy dëkk bu sell bi nga xam ni mooy dëkku maam bu kuntiyu nga xam ni nekk na dëkk boo xam ne ji ay boroomi xam-xam ay sëti yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñoo ko sanc te lépp rek mu nekk loo xam ne ji xéewal la ak ngëneel eh, non seulement ci Sénégal waaye ci diine ak ci lislaam rawatina suñu Euh, Cheikh Ahmed Bassir Kounta nga xam ni doon na liggéey liggéey bu am solo jëm ci li nga xam ne rek mooy wàllu euh, kër gi di conf di di maanaam tarixa bi waaye tamit ci diggante diine euh, ñi nga xam ne ñooy këri diine yi mu nekk loo xamante ni ji yaakaar naa ne bu bees yu jotee xel yëpp dina dem si moom kon mu nekk loo xamante ji dañ siy ànd ak suñu équipe technique si kanam incha allah ak ay reportage ay interview ak euh, loo xamante ay micro trottoir la incha allah dinañ leen ko amal ngir xamal leen li nga xam ne moo nar a bàyyi ko fii ci dëkk bu sell bi di Ndiassane ñeel juddik yonente bi sallallahu alayhi wa dañ leen ko annoncé woon sànq rek ñoo ko gisandoo à travers euh, ces images euh, yi nga xam ni euh, moom ngeen di gis nii Ndiassane comme niñ ko waxee rek ñuy waajal li nga xam ne rek mooy ngénte waat li nga xam ne rek mooy ngénte gannaaw bañu ñu màggalee juddi loo xamante ni ji yaakaar naa ni instant bii ñuy wax yéen dëkk baa ngi commencé fees dell ak ay nit ak quelques minutes wala quelques heures Euh, ci li nga xam ne moo jëm ci célébration li nga xam ne rek mooy la commémoration euh, de de la naissance euh, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam paix salut sur lui. taalibe yi ak ñi nga xam ni ñooy jaaykat yi wala ku si nekk yaa ngi jël li nga xam ne rek mooy sa place ca déranger woo kenn voilà ñii di taalibe yi ñi ngi jëm seen dalwaay. ñii di jaaykat yi tamit ñu ngi seen i place voilà mu nekk loo xam ne décor la boo xam ne ji euh, day marqué li nga xam ne moo fiy xew à travers votre site internet euh, Sénégal set kon nag euh, gis ngeen ko l'ambiance commence à régner dans la ville sainte de Ndiassane mu nekk loo xamante ni ji yaakaar naa ni voilà mu nekk loo xam ne ko gisandoo voilà la ville refuse du monde actuellement Euh, taalibe yi bàyyi ko fu ne ñi jóge ci sous région bi surtout Mauritanie Mali Gambie Guinée Bissau ak ñi nga xam ni bàyyi ko nañ ci gox-goxaan yi ëmb réew mi euh, taalibe euh, sëñ ki nga xam ne mooy ahlu sëñ maam bu kuntu maam bu kuntu yi ñoom ñëpp rek ñi ngi fas yéene teewe li nga xam ne rek mooy maanaam célébration bi nga xam ni gannaaw ay bés juddug yonente bi sallallahu alayhi wa ñoom dañ koy amal. fanweer rek juróom-ñaareelu euh, édition bi ñu koy amal fii ci Ndiassane euh, mu tolloo woon nag ñu door ko ci atum 1884 loolu yaakaar naa ni ça ne date pas d'aujourd'hui te Olof Ndiaye dana faral di wax ni lu yàgg dëgg la. ba tax na rek euh, tey yaakaar naa ni fu ne jullit yaa ngi fay bàyyi ko moo xam tijaan moo xam xaadar moo xam murit la moo xam ñaseen yi ñëpp rek voilà mbokk yi yéen ko gisandoo fi tol toll nii euh, dëkk bi xat na lool li ko waral rek lépp jëm ci waajtaayu li nga xam ne rek mooy Euh, gannaaw euh, juddug yonante bi sallallahu alayhi wa ay bés ñu fas yéene nag euh, def li nga xam ne mooy ngénte fii ci dëkk bu sell bi di Ndiassane gis ngeen taalibe yi ñu ngi ñëw ak doole Euh, mbedd yi commencé xat euh, ci ay waxtu rek ñu war a nag daal di màggal li nga xam ne rek euh, mooy juddug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci dëkk bu sell bii di Ndiassane kon nag équipe Sénégal 7 fas yéene ànd ak yéen wane la leen lépp li fi bàyyi ko ci li jëm ci li nga xam ne rek mooy màggal guddik juddug yonent bi sallallahu alayhi wa fii ci Ndiassane gannaaw ayébés bañ ko màggalee sur l'ensemble du terrain territoire national ak euh, dans le monde entier euh, kon nag euh, ñu ngi nii ci digg xolu Ndiassane gis ngeen taalibe yi ñu ngi fees dell ci mbedd yi lépp rek jëm ci waajtaay li nga xam ne rek moo jëm ci màggal guddik yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag yéen ko gisandoo nit ñaa ngi ñëw ak doole voilà lu mu gën di dem rek mbedd yi di gën a xat lépp rek fu ne euh, taalibe yi bàyyeekoo fa góor jigéen mag ak ndaw ñëpp rek ngir ñëw teewe ci li nga xam ne rek euh, mooy euh, maggal guddig juddug yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci dëkk bu sell bi di njaasaan kon nag mbokk yi xam naa dañ leen di bàyyi ngeen vivre li nga xam ne rek mooy ambiance bi ci fii ci dëkk bu sell bi di Ndiassane laat ñuy dikk ak yéen ci yeneen